Semina Star Semina Star di African place bu ñëpp doon xaar képp ko bugg sa taar wala bugg a sanse buy bëggal sa xol dawal foofu ca Semina Star amal nañ leen lii di organic and body hair oil soap for hands and smooth whitening soaps waaye tamit amal nañ leen lii di hair spa cream for face and body with no chemicals all natural waaw waaw all natural laa leen wax de xanaa li neex daba noppi waaye nag emuñ foofu rekk ma ne xéewal day mat moo tax nag ñu amal leen lii di african clothes amal leen lii di baby carrier di mbootu ma ne ana yaayi neene yu baax yi daw si leen gaaw amal nañ leen tamit lii di turban hats bonnet fancy face mask képp koo xamante ne nag bëgg nga am ñii di Semina Style mun nga leen a contact si seen email adresse bi di Semina Style at gmail dot com wala nag foofu di seen website bi di Semina Style dot com bagage yu yaañ yii nag amul ci benn African country jamono juñ toll nii waaye nag am na ci European countries si ak American countries yi pour bégal sa xol rafetal sa taar dawal foofu ci Semina Style Semina star rafetaay yépp ay feeñ